canal yi nga xamante ne ñu ngi leen di samp ci gox yi ak goxaan yi nekk ay jumtuwaay yu mucc ayib ngir rek mën a xeex lépp lu jëm ci wàllum mbënn mi waaye it mën a xàll ay yoon yi nga xamante ne ndox taw bi mën ko jël ci ay gox yu bari daanakal canal yooyu le sax boo xoolee ay mbalit kese lañ fa tuur gox bi mel ni ginnaaw raynoor foofe ñu gis ne ay kanal yu bari askan wi daañ koy jëfandikoo ngir sotti ci ay mbalit mu nekk situation bi nga xamante ne ñu bëri di ko ñaawlu. chaque jour ñoo ngi ci ndax sensibiliser gars yi si wàllu mbalit meeg yooyu noonu rawatina parce que eh, bassin bii ngay gis nii am na ñoo xam ne dañuy ñëw ba si biir bassin bi di fa tuur mbalit te nit ñi heure biñ koy tuur doo ko fekkee te it loolu noonu yaakaar naa nit ñi la mais. munoo dugg kër gu ne ne leen soo fi tuuree mbalit ma da ngay sensibiliser rek wax leen fii du tuurukaay mbalit tegal leen ay pullu mbalit. li ma njëkk a gëm mooy Euh, li nga xam ne mooy assainissement warul nekk affaire affaire taf yëngal man dama jàpp ne assainissement vision la war a doon assainissement dañ ko war a waxtaanee ak ay experts xool dëkk bi tey. ndax assainissement wala wàllum nawet cet da cee baax mbalit moom nga wax noonu finalement am na ay point de yu fa def pour problème de mbalit yu ñu war a mën a teg mais xëy na sore na sorewul. wala def ñaari pôle. milin màcc bu ñëwee na fees dañuy dellu si waat ak seen te moo ne de la taxoon jóg kanaal yooyule bokk na ngir rek mën a dimbale askan wi ci wàllu gestion ndox taw wi waaye it mën a ñëwal dëkkuwaay yi mu nekk situation bi nga xamante ne askan wi daanaka neexu leen te it di sàkku ci autorité yi ngir ñu dimbale leen ci wàllu yi. kuñ ci mën a jàppale mu gën a bari. te loolu sax am na ñu si doon am naxoon nañ si sax na léegi loolu ay moto dañ daan dugg ci koñ bi dañuy indil ay problème de pôle mbalit dara gisaguñu dara mais kun si mën a jàppale kun si mën a dimbali ñun benn sans loolu bëgg nañ ko. ñu ñoo ko war a def kuy tuur nga xam yóbbul segg sab tame ba mu set nga xool noo koy doxalee waate mbalit mi ci ginnaaw canal ba laay wax jal yooyu ba tax ñi nga xam ne samba boy yi fa la ñuy dajaloo guddi di fa dajaloo bëccëg ay barax lañ daan wax te wax nañ ko wan nekk nekkuñu ñun ci jàmm. rek mooy mu gën a yombal pëllu mbalit yi bu dee daa am loo xam ni sax pëllu mbalit yoo xam mun na koo jëlee feneen niveau ministère ñëw may ko commune bi ñu teg barab bu ne ñu teg fa ay pëllu mbalit loolu it ñu ngi koy ñaan maire bu mu nee dox jéego yooyu noonu dinañu gënal parce que am na loo xam ni su dee moom li ko war def na ko su demee ba askan bi defuñu lu leen war su ko defee nit ñi ñu ay dof. dañuy xam ni moom munul munul munul lépp mais nag jéem na lim man ku wax assainissement faaw rek nga wax canal yi nga xamante ne tabax nañu ko ci gox yi ak goxaan yi ngir rek mun a dimbale askan wi ci wàllum mbënn mi war nañ ko xoolaat bu baax ndax fu ndox nekk ci kër rek war a génn dem bu dee canal yi day fatt ñi xam bu fekkee tabax bi moo kawe ñi xam ñi daal ndox may suñu jafe-jafe te ginnaaw raay point bàyyi ak mbedd yi ni ñu bindoo ni ñu bindoo mën nga ko liggéey ni sootu ko ne doo am benn problème tey fii ni ñu taxaw nii rek muy gore point bas la boo xam ne moo gën a wàcc si ginnaaw raay donc soo fi defoon station de pompage man mosuma nangu bassin de rotation parce que bassin de rotation gis nañ fi mu am yëpp ay problème rek lay indi parce que teg benn ndox di xaar mu dem kañ lay dem lan moo koy pousse lan moo koy yóbbu station pompage man laa d'accord woon canalisation moom yaakaar naa ne mooy suñu premier problème ñun waa ginnaaw rawatina ñun côté Gorée fii nag ñu ngi ci benn quartier bi nekk foofe ci gannaaw raynoor Nord foofee it mu am ab kanal à ouvert mi nga xamante ne gas nañu ko ngir rawale ndox taw yi waaye ba saa si tembe canal boobu askan wu bëri commencé nañ ko soppi di ci tuur ay mbalit. ndax ni ngay gis nii bu guddi jotee raakoolu foos yi lañ ciy jël monte ci di génn vider kër yi di ko ci def looloo ci gën a ndaw waxuma la mbalit mi ci nekk ak salté yeeg yëpp. te li ci gën a yéeme mooy raakool yi ci nekkoon dan def ko si génne ko si ñu ngi ci bi boo demee tey léegi nii si ginnaaw ñu ngi ko dem ci ginnaaw fële di ko fa monter. mais si gis nga fu mu toll tuurukaayu mbalit lañ ko def parce euh, oto mbalit bi da doon dugg fii di euh, jël mbalit mi mais léegi oto mënatul dugg léegi ku si yor sa mbalit sa ceeb sa loo yor fii nga koy sànni si kanaal bi ak ndox yu bon yu ñu fiy def mu ndoxu foos day xeeñ te aussi tamit bon day bëri yoo ci nawet lañu nekk feebar day yomb nit ñi. surtout nag ak salte bii nii ñu bëgg dund ak moom ba kañ. mais dañuy jël ndox mi nga xamante ni moo nekk seen biir fossé di ko virer si sunu bundu kër te am na ci loo xamante ne si nii inconvénient yi mu mën a am ñun ñoo koy souffrir. te li gën a ndaw mooy ñetti weer mën na fee am ñetti weer te duñ ko suul. daanan toog nawet taw ba ut jeex te duñ gis yoo fi mu nekk ñun ak yooyu ñooy rombante guddi ak bëccëg suba ak ngoon lu raw yooyu sax mu ngi fi ndax kàmb gi lu nekk mën na fee jóge suñuy xale kenn foowatul amatuñu jàmm amatuñu salaam ñu doon liggéey koom-koom bi daan jóge fii ba aw nele amatu fi Waly Ndiaye yow la ñuy waxal ñëwal nga wax ci kàmb gi wala ñu suula ko suñu bopp. jafe-jafe yu méttee méttee méttee méttee ñu ko fiy dund te fii yàlla tere boo amoon urgence boo xamante ne si ni oto boo fee mën a dugg jël fi malade wala sapeur war dafee mën a dugg du fi dugg. bari yi sax yu ñu si mën a jànkuwanteel parce que xoolal regarde yaa ngi koy gis ay ndoxu foos ak tout lépp a ngi si. te xale yi fii lañ nekk ñu ngi dëkk à zéro mètre. naka noone askan wi di interpeller office nationale de l' assainissement du Sénégal ngir mu ñëw dimbale leen ci wàllum assainissement commune boobule. mais ONG yooyu ñu ngi leen di woo ñu dugg ci biir dëkk bi nga xam ne mooy ginnaaw raay nord parce que soxla na leen bu baax a baax a baax fii rien ne va pas assainissement éclairage public euh, environnement rien a va pas suñu dikkee daal ñu mënee dimbali si suñuy problème problème yi gis nga ko ñoo ko gisandoo léegi di nga loolu mooy suñu problème. soxla na ko bu baax a baax a baax surtout fii surtout fii quartier Mango gi surtout fii assainissement problème boobu nga expliqué li ma daan ñoon surtout fii bëgg nañ ku ñu ci dimbali ñaan ñu war a mën a may a may waaye it am na ñenn ci askan wi dem ba sax proposé ngir UCG sampal leen ay point de regroupement mbalit yi ci yeneen gox biir commune bi. ñun ñu ngi doon ñaan tamit bu ñu mënee am benn point point UCG fii si buntu bassin bi moo ñu gënal parce que point UCG am na si taliba mais daa xaw a sori tamit. bu fekkente ne da nga ne jigéen ñi bu ñu tuur mbalit mais mbalit kenn du ko dem ci kër wutal leen ay dépotoir yu ñu ko mën a sotti. mais bu ñu amul dépotoir yu ñu ko sotti dañuy mujjee obligé di ko def seen panneau ndox yi suñuy tuur di ko camoufler pour mën ko génnee kër gi mën ñu ko bàyyi ci biir kër gi donc loolu roolu maire la loolu loolu commission euh, environnement la. ci fàttali commune bu ginnaaw Rail Nord mu ngi ëmb askan wu toll ni fanweeri junni ak téeméer ak. ak ñeent fukk ak ñaari doomi aadama yi nga xamante ne ñoom ñoo fa yeewu mu nekk commune bi nga xamante ne bokk na ci yi ñu war a dimbale ci wàllum assenisement moo tax it ñu interpeller ONAS ak ay partenaire am ci wàllum gestion mbalit bi waaye it ndox taw mi ñu defaral leen ay kano yu mucc ayib. ñu ngi fii ci commune bu ginnaaw Rail Nord fii ñu taxaw mooy bërëb bi ñu naan gore mu nekk bërëb bi nga xamante foofu la ndox taw yi jóge ci quartier yu fasantikoo ci ginnaaw raay di dajaloo waaye nag jafe-jafe biñ nemmeeku fii mooy gis nañ ci mbalit bu bëri bi nga xamante ne ñu ngi jooru wërndël bassin boobule taxit ay jeunes yi nga xamante ne ñi nekk ci mouvement ànd taxaw commune bi bëgg nañu ku leen dimbale donc ci bassin boobule ndax ñu mën leen amal fii ay lieu de rassemblement des ordures comme lu ci mel ni UCG waaye it ku leen dimbale tamit ngir ñu defar ay canaux yi nga xamante ne askan wi dootul jël ay mbalit di ko ci sotti loolu nag mu nekk plaidoyer bi nga xamante ne lancé nañ ko ci autorités yi nekk fii ci Sénégal.